pour trois minutes. Bonjour, madame. Salaamu aleykum, euh, monsieur le ministre euh, Oumar Sarr. maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu euh, suñu dëkkandoo yi ni ngi leen Mère Khady di woowee ministre des finances euh, ministre chargé du travail di nuyu ñëpp ñi nga àndal un gros coucou à ma puce Yondé Diop à Alioune Thiam et à toute l'équipe avec qui vous êtes avec Diop Euh, dama doon laajte rek première question bi mooy pourquoi zircon Niafran bi nekk Bignona ñu tëj ko euh, parce que selon l'ingénieur géologue Ibrahima Diaw la compagnie Astron n'a pas exploité le gisement depuis que le permis lui a été octroyé obtention du permis en 2006 et exploitation en 2008 moom mu ni ni que looloo tax ñu tëj ko dañu nangu permis bi mu may rappeler une affaire qui s'appelle l'affaire ArcelorMittal donc le temps nous donne raison le temps donne à Abdoulaye Wade que nit bu ñu la joxee licence nga toog des années di fonto réew mi di ko exploité moo tax mu traîner leen en justice yóbbu leen ba ñu yóbbu ñu ci benn cour boo xam ne dañu waroon waxtaan tribunal arbitral euh, arbitral Paris moo ñu ne woon dem leen ngeen waxtaan pour xool nan ngeen di trouver consensus ñu dem autour de mille et quelques milliards ñu ñëw xëy suba ñu ne 75 milliards état Sénégal nangu na 75 milliards à Macky Sall may ñaan monsieur le ministre parce que vous connaissant dix cadres politiques au Sénégal yow mënuñu la ci génne gëm nga itam sa réew parce que ñun xam nañ la dañu ni ngeen yóbbu ñii justice parce que mënuñu 2006 ba mu neex leen ñu jox leen suñu licence perte manque à gagner la nañ leen yóbbu topp leen ñu fay ñu xaalis bu ñu war il faut qu'on ait cette autorité là le Sénégal n'est pas un no man's boo xam da ngay ñëw signer euh, pour avoir un portefeuille comme Mittal voulait le faire parce que dafa bëggoon def opéra sur euh, sur Arcelor moo tax mu ñëw signer ak ñun pour mun a am ñu am le Sénégal dans son portefeuille Astron mi topp leen leen ko xaw ma ndax def ngeen ko ou pas léegi bëgg ñëw rek ci dépense de fonctionnement yi monsieur le ministre du budget de personnel mine 313 millions 584 mille pilotage coordination et gestion administrative 1 milliard 800 millions dépense géologie 76 millions 953 euh, millions c'est tellement vertigineux j'ai eu du mal à calculer 2 milliards 190 millions 537 mille mais qu'est-ce qu'ils en dépenses de personnel on peut m'expliquer c'est qui les mineurs euh, euh, les les GIE locales pour man man ngeen wàññi personnel bi xaalis yi ngeen organiser ñu dëkk foofu financer injecter leen ko ñoom ñu mun a créer am tuuti ci ressources yi au niveau local mais pour moi les dépenses de personnel c'est astronomique hein, la masse salariale c'est pas possible donc ma bëggoon terminer rek Sarr Amadou Bokar suñu cordo laay wax bi pas cordon ñibbisil kër gu mag la récréation a assez duré Macky Sall ne se présente plus il faut rentrer à la maison loolu daal laa doon terminer di la xaar merci